waa mais du ma ne intention véritablement euh, privé ko de ses droits euh, civiques et politiques par mhm. rapport ak li nga xam ne mooy élection yu ndëgmal mais encore une fois euh, jàppaate yi yu bari yi ak euh, dafay créer euh, li nga xam moo di supputation mm. maanaam lu tubaab naan supputation maanaam nit yi dañuy dañuy am xel ñaar quoi de ce point de vue là da ngay gis ni pratiquement la majorité des candidats déclarés à la mhm. candidature en perspective la présidence de 2024 soit dañoo am dossier en suspens wa ila am nañu benn condamnation boo xam ne am na jiixi jaaxa sur leur participation parce qu'il y a deux articles mm-hmm. yoo xam ne amoon mon avis c'est des articles euh, euh, déconsolidants du point de vue de l'approche euh, liée à la confection des lois mooy article L29 et article L30 du code électoral les articles disent explicitement que citoyen sénégalais bu ñu la condamné kaw mais mënatoo nekk électeur ku mënatul nekk électeur code électoral nee na mënatoo doon candidat. voilà bu ñu la bu ñu la condamné amende deux cent mille francs jëm kaw euh, yam minimum jëm kaw cest à mënatoo doon candidat. parce que perte nga sa droit d'électeur je crois que c'est c'était des articles liberticides mm. c'est des articles antidémocratiques et antirépublicains te par rapport ak yi nga xam ne mooy l'histoire récente du Sénégal mm-hmm. encore une fois mm-hmm. l'histoire récente wax ma sax duma remonter l'histoire plus loin mais l'histoire récente du Sénégal waroon na tax aujourd'hui ñu tabax benn état de droit boo xam ne si wàllu loi dañ koy yeesal parce que président Macky Sall moo jëlee moo jël neuf cent millions su ma juumul xaw ma sept cent millions jox ko Amadou Makhtar Mbow suñu maam jooju. Mhm. ne ko commission nationale de réforme des gestions dama bëgg nga seetal ma xóotal ma xalaat gi pour mu xool yan réforme la président moo ne. avant février 2019 bu muy def dédicace livre am mu ne li may regretter ci sama premier mandat mhm. mooy le fait de n'avoir par fait beaucoup de réformes les réformes sont institutionnelles te réformes yooyu ñu ngi ko doon xaar sur le plan législatif les réformes yooyu ñu ko doon xaar sur le plan judiciaire te loolu dina doon permettre jamono ji li ñuy dund comme tension bi nga xam ne sa plane sur la tête de chaque Sénégalais ñu war ko mën a moytu parce que président moo ne woon euh, arrivé au pouvoir je ne vais pas construire des routes et des autoroutes je vais construire l' état de droit. Uh-huh. xam nga lan mooy tabax état de droit moo di lan suñ ko tabaxoon ni ñu ko waroon tabaxee lii du lii duñ si nekk xoolal processus électoral bi comment il est biaisé. Uh-huh. aujourd'hui on parle d'une révision très courte une période de révision très courte. voilà voilà voilà pour une élection aussi importante. ak li nga xam moo di primo votant yi nga xam ne am na ñoom majoritairement am ñu carte d'identité nationale te war ñu dem déposer carte d'identité nationale da pare dem wuti carte d'électeur xoola période boobu xoola temps boobu xoola durée boobu par rapport au nombre en réalité que cherche t tey ji nii nga xool li nga xam moo di parenage bi lan la war a mën a jural au delà des tensions politiques yu ngay gis nii procès wala intention de procès wala leneen ak leneen suba est-ce que Pape Malick ñi ñu kale woon 2019 2024 bu leen kale daañu ko nangu. Mm. est-ce que seen ay nit daañu ko nangu est-ce que seen ay sympathisants daañu ko nangu alors que on avait le temps véritablement d'aller dans le sens de pouvoir faire des réformes. des réformes profondes c'est vrai que faisons du Nigeria sans faire du Nigeria mais faisons du euh, Niger sans faire du Niger su ma ko waxee moo di en réalité ñee def nañu deux dem nañu organiser ay élection waaye jàpp nañu ni am ñu si bari li ci jënti nañ ko ba ka ñu buggoon mu fallu si seen camp moom mu mujj fallu Trump xëy na itam c'est une bonne chose mais encore une fois au Sénégal on ne peut pas aujourd'hui continuer d'avoir les mêmes débats d'il y ans. daji mm-hmm. nii ñi fi nekkoon dans les années 80 di politique. bu leen yàlla indiwaatoon ci kaw suuf. kii day dox duggu permanence APR. kii dugg dox permanence su PS. ñëw toog boo dans le débat te du laaj ci question. parce que ce sont les mêmes sujets ce sont les mêmes débats ce sont les et c'est vraiment dommage.